cheikh bi kii nee na dafa gis lu metti la xew ca Maroc eh, yal na yàlla yaram ña ca faatu eh, muy mbir mu metti muy tremblement de terre ba waaye nee na mu tëkkale kook eh, réewam xool réewam niñ nekke ci jàmm ba pare bokkaale gi ni mu fi bëree joxe na ci sax ay misaal tamit yenn yi am rawatina suñ wax suñ jamono ji ab yéeféer bu dee eh, ay jullit dem di ko ñaanal ak di ko jullee eh, nit ku ni ab jullit la eh, di jalgati ci àq yàlla ak àq alquranul karim bokkaale yi nga xam ni moo fi tasaaroo ci wax ki jëf mu ni daal bëggoon na benn taxaw seetlu ci gam-gamle ñaari mbir yooyu ndax waa Sénégal mën a jàjju alhamdulilah sa borom yàlla day day buur boo xam ne bu mat a ragal la ndax lépp loo xam ne xeet luñ war a xamal doomu aadama yi aw lay dañ ko faa amatul wàcce na ay téere yónni ay yonent xamal ay boroomi xam-xam ñooñu jot li jàngale la ca des nag mooy doomu aadama ci boppam daa doon ko fetteerlu li tasaaroo tey ci kaw suuf ci li ñu tuddee ilhaad muy ay jullit yoo xam ne dañoo dem ba mu yàgg ñu weddi yàlla wëlbatiku di ko bokkaale te bari lool ci xeeti bokkaale yu jëf ak wax dem ba mu yàgg jullit ku doonoonu jullit mën a wëlbatiku dem bay doyadal yàlla di doyadal ab yonentam di doyadal téere bi nga xam ne moom la wàcc ci yonentam boobu yi loolu de lu rëy la loo xam ne su fekkee ne askanale yàlla ci ay melokaan lu yellut daf koo melal ne kaburat kalimatan taxruju min afwaahihim baat bu rëy ngoog di génne ci seen gémmiñ yi su fekkee loolu la day ñi koy joxaw melokaan wu bokkul ak ay melokaanam moo naka ñi nga xam ne dañ koy bokkaale ci seeni jëf ak seeni wax ak seeni woote sax faf borom bi nag daa bokk ci yërmandeem mooy léeg-léeg day jàjj nit ñi wàcce ci kéemaanam yi nga xam ne nu ne lay dikkee nu ne lay dikkee ngir nit ñi mën a gindikuwaat delluwaat ci suñu borom tabaraka wa taala ragalaat ko loolu moo tax mu ne wa ma nursilu bil ayaati illa taxwifa soo gisee muy wàcce aaya yu mel noona ay kéemaan yu mel noona jekki ba mu yàgg am réew jekki-jekki suuf sa xar jekki ba yàgg ndox ma baawaan dëkk ya di lab nit ña di tàbbi ca xunt ya tabax ya màbb ci seen kaw boroom nit ña di faatu nit ñi loola dal war nañu tiit ña ci mucc dellu ci siraatul mustaqim te tuubal seen borom tabaraka wa taala ñu nekk ci seen jàmm ak seegut ci ñoom itam war nañoo xoolaat seen bopp te xam ne day borom bi tabaraka wa taala la te ku watu la ku mat a daw la borom bi nee na dahara alfasaadu fi lbarri walbaxri bima kasabat aydi nnaas liyudiqahum bada alladi amilu laallahum yarjiun ak yàqute tasaaroona fépp ci sababus loo xam ne doomu aadama yi ñoo koy def waaye rek ne borom bi tabaraka wa taala dana leen mosal lenn ci résultat li nga xam ne moom lañ jëf ci lu baaxut waaye loolu jubluwu ci alag leen rek waaye laallahum yarjiun ngir ñu mën a delluwaat gannaaw kon yooyu bu ko borom bi tabaraka wa taala di def dafa bëgg nit ñi tuub waxaat na ko ne wala nudiqannahum min alazabi al adna duna alazabi al akbari laallahum yarjiun danañ leen mosal mbugalum léegi ak mën naa doon fii ci àdduna mën naa doon sax waaye mbugalum mën a delluwaat am ndax bàmmeel moom ku fa tugg mënatoo dellu gannaaw bar sax ku fa nekk buñ lay mbugal ma day metti rek waaye mënatoo tuub waaye fii fi àdduna nag laallahum yarjiun soo mbugal mi ñëwee fële mbugal mu jóge ci sunu borom tabaraka wa xam ne lii metti na lool yóbbu na ay bakkan yu dul màbb na ay kër yàq na ay koom-koom lépp ngir borom bi tabaraka wa taala ci yërmandeem ngir ngeen mën a del siwaat siraatul mustaqim ndax adduna kat boo ko xiyaas rek àllaxira tekkiwul dara kon noonu ci suñ réew mii suñu gisee lala xew ca Maroc lala xew ca Libye nga xam ne ay nangami junni ñoo fa xëy xëy rek ci lu matul juróomi fan ñëpp faat lu mat ay nangami fukki junni amatuñ fuñ dëkk amatuñ it luñ lekk te démb ak bëkk bi ñu nekkoon ci seen tiraanga yor seen i moomeet yor seen oto yor seen i kër yu rafet yor seen jur di xéewlu jékki-jékki xëy xëy amatoo ko xanaan la nga yoroon lépp yàqu say bokk faatu léeg-léeg nga gis kenn ku ni cumm koo xam ne amatul mbokk ñuy dem di indi ay psychiatre ak ay psychologue ak ki mel noonu ñuy jéem a dalal seeni xel soo ko gisee te yow nekk ci jàmm day soo dee ku laa biire sa bopp war nga xool sa bopp lépp loo xam ne mi ngi woon ci yow te jaaduwut yellut ci sa diggante ak sa boroom nga gaaw dëgg daw jóge ca loolu loolu day mooy li jaadu ci nun ñu yooyee gaar nag képp ku ca faatu da doon ab jullit yal na la yàlla yërëm képp koo xam ne ku ca euh, gaañu la itam dara dal la ci nga nekk ci hôpital bi fajtu yal na la yàlla faj képp ku ca muccit yàlla na la yàlla gindi ba nga xam xikma bi tax suñu borom tabaraka wa taala di def lu mel noonu yi ngir nga mën koo daw ndax nga mën caa mucc yàlla nanu borom bi tabaraka wa taala defal loolu wallahu taala alam jazakum allahu xayran jërëjëf cheikhana